ba léegi ñoo ngi Cees rek Youssou Fall toogaal ak Laye Gothé di rakku Modou Anta moom tamit ñu gis ko ni daaw def na ay jaloore def deux combats deux victoires su ma juumal loolu la def daaw ñu fas yéene waxtaan ak moom moom tamit fekk ko Cees rek bu ba moom tamit gis ñu ko promoteur dañ ko daw gis nañ ko sax mu wàcc ci bëri simple bi dimanche passé ba Reug rek moo ko mujjee éliminé dañ koy nuyu bàyyi ko mu nuyu seetaan Lutte TV point com lay ziar naa. waaw salaamaaleykum Lamine ginnaaw bañ sant yàlla julli ci yonante bi ñu ngi sant suñu ñaari waajur. di sant suñ sëriñ sëñ Abdou Sakkour mu sëñ Cheikh Fall Ngunda waaye di ñaanal sëñ Muntaxa mu yàgg fi lool te ànd ak wér di ñaanal sëñ Cheikh Jëm mi suñ xalifa général tamit mu yàgg fi lool waaye. daaw ñaari nga bëre. waaw daaw ñaari combat laa bëre. deux victoires deux waaw. boobu ba léegi gisaatuñ laay mu bëre lan moo tax lool. waaw boobu ba léegi nag ñun ñu ngi ci entraînement yi ñu ngi ci entraînement yi chaque jour mais xaj na nag lu jot yomb quoi oui xaj na dafa jotagul quoi. way moo tax. ba trois mois de saison bi est-ce que yaakaar nga ne di nga bëri. waaw ba tey yaakaar naa ne naa bëri ndax c'est parce que sama licence bi ma ko renouveler dama cee def ñaari timbre lutte avec frappe ak lutte simple waaw kon am yaakaar moo tax ma def ko quoi oui yaakaar naa ko ba léegi. est que promoteurs yi ñu ngi lay démarché. waaw promoteurs yi ñu may démarché ñu ngi may démarché quoi mais bari na ci promoteurs yu may démarché nag combat yi ñu may wax moo ma wul quoi. oui loolu moo tax ba léegi. ay mbëru Thiès la wala doo bëri ñoom région de Thiès. waaw ay mbëru Thiès ñii ay mbëru Thiès lan ñii yi moom bari na ñoo xamante ni moom combat ci ñoom la yàqoo quoi. oui mooy combat Mame Balla bi ak Tapha Mbeur rek ñoom ñaar ñëpp proposé woon nañ ma leen mais man bi ma d'accord ci ñoom ñaar la yàqoo ba après ñoom ñaar ñoo mujj bëri seen biir waaw. Tapha Mbeur sax gis nañ ne daaw doon ngeen fi wax ba wax ngeen fi ñaar téléphone. seen combat lan moo tax boobu léegi mënul taxaw te ñëpp ne at combat combat la sa adversaire waaw Tapha mbër sax yàlla xam na ni mooy loolu mbër la champion la mais man ak moom bokkuñu quoi oui man ak moom bokkuñu ñu c'est parce que man li nekk ci man nekkul ci Tapha mbër. li nekk ci yow te nekkul ci Tapha mbër. non bëre bi ne ci man ak doole ji ak adversaire yi ma bëreel moom bëriwul ak ñoom quoi xaj na nag amateurs yi luñ bëgg dañ ne yow miy mbër xam nga li ma lay expliquer da nga da nga leen war a delloo njukkal quoi. oui pour liñ bëgg après nga taxaw ci waaw noonu rek la demee mais maa moom sax yàlla xam nañ du làmb. kon jàpp nga ne doo moroomu Tapha Mbeur. non du lu leer laa lay wax. bi la démarché Tapha Mbeur kon instant bi soxla non instant yi moom soxla wu ma Tapha Mbeur quoi. parce que daanu. non du cadre lim sax ba bi muy daan sax. loolu du làmb amateur yi ñoo ko bëgg rek comme ambiance ak affaire yooyu noonu rek loolu du làmb sax. Mm-hmm. yaakaar nga ni loolu du làmb tamit laay góote. non du làmb du làmb. comme yi. bi amateur yi gën a soxla instant bi di ko waxtaane mooy sa diggante ak Papa Yada six combats la def six victoire Papa Boy Djiné la mujjee daan combat boobu loo ci wax. waaw mooy comme li ma la wax sànq rek li ma la wax ci Tapha Mbeur laa la wax ci Papa Yada rek mooy loolu noonu ñooñu noonu duma ma seen morom yàlla xam na ne ñooñu noonu mooy loolu noonu li ma def defuñu ko fi ma jaar jaaruñu fa adversaire yi ma bëreel bëriwuñoo ak ñoom xaj na nag ñoom dañoo comprendre quoi dañoo xamul. Papa seetaan naa ay combat mais man sama bët jéggi na ñooñu quoi oui sama bët jéggi na ñooñu. da ngaa gëj a xeex te la booleeg Papa Yade da nga xam ne xeex moom di nga ko def par force. non man ñooñu su may bëree ak ñoom du ma ñoom. ya ñooñu ma leen di jàpp daan leen ñooñu naa fa nekk di xeex ñoom sax affaire yi di yàgg nii samay supporters di di xaw a stressé wala dara. comme ama neex moom moo moo daan te jàpp naa ne làmb la war nañoo mën a bëre yow kay nañ la boole rek muy rakk ak rakk comme la Sa Thiès. du ma moroomam nag ma ko raw de mais bu ko amateur yi bëggee ma bëreeg moom de. loolu kenn bu dee yaa ko raw te ay amateur yi déglu ah léegi bu moom kan nga soxla. noo man Gamou Gueye sax laa gën a bëgg. Gamou Gueye wala Mame Balla noo rekil man ñooñ laa bëgg ñooñ ñooy samay naataango ko mais tamit damay déglu amateur yi de. Gamou Gueye de ak lu moom bu at bu sifflé moom la tuuf moom. déggoo li ma la wax ñooñ du ma naam ne la àtte xeexul de la àtte xeexul kuy àtte xam nga ni du xeex waaw noonu la demee rek man duma ma xeex ak ñoom dama leen di jàpp daan leen dem ñibbi. ba ci Gamou Gueye Gamou moom bëgg xeex bañ xeex. non mooy loolu noonu. da ngaa bëri ak Pam Ndoye Pam Ndoye daan la Pam Ndoye ñu boole ko Gamou Gueye mu dóor ko bañ nangu ko cee ay loxo. waaw lool dëgg la làmb mooy demee noonu quoi mooy loolu noonu mais sama combat ak Pam Ndoye sax du ci bëgg di ñëw mais ko gis keroog làmb ja ni mu demee nga xam ni. am na am na lu ci laxasu quoi. billaahi mais champion la di ko ñaanal yàlla na ko victoire bi jig ko revanche boobu loo ci wax. buñ ma ko joxee ma jël. moo ma gën a métti nag sama làmb nag. ñi nga duggati yow ñaari tali yéen li ñu leen wan waa ñaari tali. magam sa mag rak ñëw daan rak nga ne da ngay dëggaat foofu. déggoo li ma la wax xam nga des fois da man bari sax ngeen ñëw di bëre erreur am mu daan la loolu da lay métti quoi sama kom ak Pape Ndoye moom ma gën a métti sama làmb. kon yow da ngaa jàpp ni yow yaa man Pape Ndoye moo daan daa man loolu wér na loolu wér na non wér na loolu moo am sax xoolaat rek bañ bëreek ñoom ba léegi ñoom nan lañ demee seen côté ñun ñu ngi ci làmb ji ba léegi di bëri de ñoom ba léegi bëre wuñ de waaw seen mooru bi ko Lac daanee ba léegi quatre victoire la tegale daa daan bàcc seeraas daan caat yaa ngi may dégg daan Zarko daan Baye Mandione te Lac Rose mooy loolu noonu Moussa Ndoye la mujjee bëreel ku ne gis na li ci xew. kon loolu day am des fois nga daan mbër te fekk ki nga daan moo la man fuuf loolu day am. yéen a mën waa kër doom Lac Rose. non Pam Doy nañ ma ko joxaat rek paam Doy nañ ma ko jox bëgg naa ko waaw. man maa ngi ci ay dynamique victoire nag moom ba mu bë ba mu bëreeg man ba léegi bëriwaatul mais buñ ma ko joxee ma jël ko. bii baasa moo ñëwoon moo la fekk si woon xanaa yaay fekk si bii ba. non Dakar sax laa ko a bëgg ndax bëree sa dëkk dafa metti quoi oui Dakar laa ko bëgg Ibamar. gis nañ leen tamit yaa ngi wàcc ci bëri simple bi bëri nga ak rëg mu daan la te daaw laaj naa la nga ne moom Modou du bëree ak rëg daan na la kay léegi xanaa dootu wax loolu. waaw xam nga rëg-rëg li ñu doon bëree ma ak moom tirage moo ñu boole quoi tirage moo ñu boole ndax tirage mën naa boole yaaw jaal sax xam nga li ma lay expliqué ak laay goote tirage mooy def loolu quoi mais moom moo ma xaw a supérieur tuuti quoi ci làmb loolu dañ koy nangu quoi moo ma supérieur xaj na tirage moo ñu boole moo tax ma bëree ak moom mais bëre bi ma bëree ak moom am na lu ma ci gën a jàngate quoi oui am na lu ma ci gën a jàngate ndax man booy mooy loolu noonu damay doog a door quoi te yàlla xam na ni keroog mooy loolu noonu am na nu mu demee quoi làmb ja. loo jàng ci bi ngay bëree ak moom ci côté bëri. bu nu du ma daan. lu leerte te wóor laa lay wax. loolu laay. non damaa xam ne bu ñu bëreewaatee du ma daan rek demi final lañ tase ma nak moom moom quatre combats la bëre man cinq combats laa bëre keroog ndax dañoo tóol mais paa moom lañ exemptel ko affaire yooyu noonu mais li ma leer te wóor daal mooy bu ñu bëreewaatee du ma daan moom. li moom loo gis ci moom. noo lii maa la ko wax waaw. mooy faible am na ko xam léegi. mat na yàgg na ndax mbapat dañ ni loolu la quoi compétition loolu lay jariñ quoi ku la daan tey bu ëllëgee bu nekkee mbër nga nante nga du la daan boo leen dee tasewaat. kon kay mën nañu xaar Laye Gothé euh, 3 millions Jax woote na 3 millions le premier mai mën nañoo xaar Laye Gothé Iba Mar Diop. nañ ko xaar waaw c'est parce que man du ma mbëru simple sax ndax am na fu ma teg sama bët te couronne bi moom ku ci bëgg a jot jàpp naa ni am na foo xamante ni da nga koy yem ci bëre simple bi quoi. gaa mbapat nañ nag mais bëre dóor lañ gën a opté quoi mais xaw ma dinañ dajawaat xaw ma duñ dajawaat mais buñ dajawaatee moom du ma daan muy ci door bi ak simple bi yëpp. ci dóor bi. bëre dóor ak bëre simple yëpp buñ dajawaatee du ma daan lii moom man maa ko wax. fit ngay waxee instant bi non du cadre fit sax xam nga loo wax da nga koy dañ koy tegaat. te buñ dajawaatee xam nga li ma lay expliqué bu ma daanee moom sama wax jii dañ koy génne su ma ko daanee tamit sama wax dañ koy génne buñ dajawaatee du ma daan. waaw lan nga mën a teg buñ boo leen bëriwaatee mu daan la est-ce que su boobaa ni moo daan te jëlal fayu. moom du bëreeg rek rek quoi ndax bokkuñu tamit c'est parce que Modou li muy mbapat mbapat na ko ba pare moom bi muy bàyyi mbapat ci la fekk rek rek di ñëw moom mbëru arène la yaa ngi dégg te mu ngi mu ngi bëre bay waaj a àgg ci kaw kon du wëlbatikuwaat di bëreeg ñoo xamante ni mooy loolu noonu ñoom ci ñoom Eumeu Sène la teg bëtam yooyu noonu la demee waaw. lan moo waral boobu ba léegi yéen tamit leen a bëre Thiès gis nañu yaakaar naa ne benn combat lañ fi amagoon bu ñu mën a tudd muy combat ambulance. waaw di profiter ci occasion bi tamit di ñaanal ambulance yàlla may ko ndam ak Boy Niang waaw di leen ñaanal yàlla may leen ndam lu gaaw waaw. ñun nag ñu ngi ci entraînement yi quoi ñu ngi ci kawam xaj na dañoo war a gulu bëri rek loolu moo tax. Mhm. aywa looy tàggatoo. waaw di sant ñëpp di gërëm ñépp waaw di sant ku ci mel ni Gise Diagne Gise jaañ maa ngi koy sant bu baax aw fayam waa ak jabaram Fatim maa ngi leen di sant bu baax ak njabootam gépp di sant ibu Gambien di sant di sant Omar Ndiaye wooy di sant tamit jàppal ma jàpp waaw maa ngi koy sant bu baax a baax a baax di ko wax ni nag waaw mooy loolu noonu keroog ni làmb ji demee mbapat mi métti nañu trop mais xaj na dafa amoon ci yum nekk rek loolu tax làmb ji demee noonu quoi mais maa ngi koy woowaat wéy di ko wax ni mooy loolu daal mu gën a ñëwaat suñ ginnaaw te xam ne ñun amuñu lu dul làmb làmb kese lañ am di sant Pape joob Garaas di sant Pape joob tamit Pape joob Kaar maa ngi koy sant bu baax waaw di sant Gise Diagne di sant Ibou Gamme di sant Omar Ndiaye waaw di sant ñëpp di sant ñëpp daal suma ma limee rek damay juum ay Dakar gi Garaas waa ay Xaadim Yaali maître Fati ak doomu ndeyam Nafa ñoom ñëpp maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm waa di sant ñëpp daal waaye di rendre hommage tamit waa gis nga kii suñu waaju baax la muuru xolu oui ñoo ay morom la ñu woon ñoo doon àndandoo di dem ci mbapat yi di compétir def lépp mais ci màggal gi la doon màggali ci Kazu Rajab bi def soog ba génn ci àdduna di ko ñaanal nag fa mu nekk yàlla na ko gënal fi mu jugee oui di ko ñaanal yàlla yërëm ko oui te yeexe ñu quoi oui ñu koy ñaanal lu bare bëri jaajëf. Ah, simla